salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information euh, Dakarnet kontaan saa su ne ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci seen émission Guissé ak vous revient tey ñu dalal ki nga xamante ni euh, moom mooy Cheikh Omar Talla chroniqueur nekk ci euh, télévision bi nga xamante ni moom mooy Sen TV mais également fi nga xamante ni moom mooy rajo Zik FM tey ñu war a waxtaane actualité balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañu koy bàyyi mu nuyoog mbokk internaute Cheikh maa ngi lay nuyu di la maa ngi lay fay di nuyu mbokku internautes yi ak ñi nga xam ni ñoo ngi seetaan ci site bi Dakar Net. Mhm. comme gisee ak la il faut mhm. gisee bi net. Mhm. ah gis-gis bi net ci ci Dakar Net. mais na namoon naa la parce que defoon nañu émission yaa di cela ay 3 mois. waaw waaw mais la moo tax nga raaraat parce que sa kër la quand même. waaw kër la mais xam nga ak ak activité yi en dehors de liggéey télé bi ak rajo bi. dañu nekk aussi ay acteurs communautaires. donc euh, loolu la rek mais bu ci xajee rek ñun. on est toujours disponible pour échanger avec vous. Mhm. d' accord alors tey ñu war a waxtaanee actualité bi actualité bi mooy mbënn mi mbënn mi gis nga ni mu mel ñu gis démb ministre bi dañuy dugg ci sujet bi dañu nekk di tourner autour du pot démb gis nañ mu xuus si ndox bi ànd ak délégation déjà geste boobu am na ñu ko rafetlu am na ñu ni théâtre la noo ko gisee déjà. waa euh, de toute façon euh, ki nga xam ni moom dafa nekk ci situation boobu. dafa mhm. bëgg ku ko jege. Mhm. mais est ce que moment bi. amoon na importance. ak aussi est ce que défin bi. parce que man peut-être su ma nekkoon ministre daal plastique laay sol. mais ñëw sol sa costume ça veut que ñoom ak réalité bi am c'est c'est différent ñoom ci lu ñu nekk ak sénégalais bi nekk ci suuf euh, peut-être euh, dañuy wax absence d'empathie. et euh, man c'est pas gest bi sax li ma gën a yitteel mooy jafe-jafe bi. ndax saafara nañ ko wala saafara wuñ ko c'est ça le vrai débat. Mm. parce que daaw Kër Massar jafe-jafe yu mel noonu moom moo fa amoon. Euh, ñu gis ni président ñëw na Kër Massar indi mhm. ay mesures. Mhm. parfois ma leen tooñ sax ma naa leen gouvernement bi. Mhm. su doon tailleur chaque jour day jël mesure rek waaye du ñaw. mesures yi ñu jëloon est-ce que sotti na. le résultat yi la bi asamaan si ubbee ko mu taw. Euh, gis nañ jafe-jafe bi ñu doon am daawaat daawaati géej moom lañu amaat donc est-ce que li ñu wax ni def nañ ko fa est-ce que def nañ ko fa. parce que mënuñu toog ñu nee ñu dañu am plan décennal mooy. plan boo xam ni fukki at. Mm-hmm. ngir régler problème mu mbënd mi. Mm-hmm. ñu ne injecté nañ ci cinq cent onze milliards. Mm-hmm. mooy maanaam juróomi téeméeri milliards ak fukk ak benn. ci lu ñu xayma woon lu dem ci cent milliards. est-ce que duggal nañ ko ci parce que jàpp naa ne bu ñu defoon milliards ci loolu. ci ndox mi kon dootuñu nekkaat ci situation bii ñu nekk. donc moo tax man may laajte nañu saytu loolu xayma ko xool. dërëm bi fu nekk fan la dugg ndax def nañ ci lañ ci war a def mais maintenant suñu problème ci suñu réew mooy problème mu transparence mooy lu leer mm. ak bonne gouvernance et tey comme ñoom ci sénégalais yi moo leen tax a liggéey sénégalais dañuy laaj ay compte mm. qu'est-ce qu'on a réalisé beneen bi muy euh, dañu waxoon ni dañuy def Kër Massar département département maanaam Sénégal da ngay am problème mu bëñ buy metti ñu jox la garab bopp buy metti aspirine est-ce que def ko département wala def ko région est-ce que loolu bi donc finalement question de volonté politique moo ci moo ci am parce que man mënuma gëm chaque année ngàcc mm-hmm. ngàcc ngàcc pour man ngàcc du solution mm-hmm. ngàcc mi lan la indi moto pompe jënd ay tuyau am ñu si am dara muy mm-hmm. business inondation te réglé wul problème bi vrai problème bi li koy réglé pour man mooy restructuration de la banlieue c'est-à-dire nga jëlee am volonté ne da ngay def sa terre mu jaral la nga teg ay kër mu jaral la depuis des années ñu investir si des centaines et des centaines de milliards jël berte mu jaral la ko balaa ngay wax TER wala nga xam BRT nanga am foo dëkk ak sa dëkkuwaay tey dafa bokk ci àq ci droit doomu aadama mu am dëkkuwaay bu sell am cadre de vie. Mm. mais malheureusement fii médecin après la mort la ñuy def mooy réew muy dox da nga koy def ci planification maanaam da ngay sóor li ñëwagul nga mm. sóor ëllëg parce que tey nit ñi jafe-jafe bi ñu am premier mooy problème mu dëkkuwaay location bi cher na. terrain yombul donc ñu bëri dañuy dem dëkk ci yenn gox parce que amuñu choix. donc muy problème mu aménagement du territoire. mais est ce que doguma la est ce que ministre ci amu ci amu ci responsabilité daf ci am responsabilité parce que pour man nekkul euh, inondation du benn problème rek mais problème bu transcendé la parce que pour man inondation conséquence la. Mm-hmm. maanaam conséquence la donc da ngay xool lan moo ko jur. Mm-hmm. donc du taw bi kese mais li bokk na si li ko jur mooy l'aménagement du territoire bokk na li ko jur. mooy politique d'urbanisation bi nga xam ne rëdduñu ko wala la plupart li fi tubaab bi bàyyi woon jamonoy colonisation ni mu ñu rëddale woon xàll ñu ay yoon loolu la ñu bàyyi beneen bi mooy wàllu assainissement lool moom moo waroon a jiitu mais malheureusement état bi daf ci am responsabilité dañu bàyyi nit ñi ñu dëkkee nu mu leen neexee dëkk fa leen neex et parfois aussi yenn mairie yi collectivités locales yi doon dagat dagatee yenn gox yi di jaay suuf si c'est ça la vérité euh, yenn société état comme SNHLM dem jël ay zone tuddee ko Parcelles Assainies Kër Massar par exemple alors que moom mooy inondé y a pas d'assainissement beneen bi euh, administration impôt domaine cadastre ñu yore wàllu suuf gi bàyyi nit ñi dëkkee noonu nit dëkkee ci nu mu ko neexee après lii yëpp ay conséquences la yu mu ñu jural beneen bi ma gëm ni dakaar nekk une ka quand on dit presqu'île ça dire que île la géej moo ñu wër nan nga mën a dëkkee Caaroy géej Caaroy sur mer route nationale bi fi mu nekk ak géej gi motul ñaari kilomètres mm-hmm. lan wut ay drainage xàlli ay canaux yu mag yoo xam ne ndox mi su ñëwee di dem continuer dem ci géej gi nga dem Cambérène mu taa nga dem Médina Gounass Jidda Caaray kaw c'est des zones yoo xamante ni am na ay xarit yu fa dëkk ci ndox mi lañ juddu ci lañ yaru ci lañ màgg ba tey am lañ jabar ci ndox mi lañ dëkk donc mm. finalement mm. c'est comme si yenn sénégalais dañ leen jàppee comme ay mbott quoi nañu dund ci ndox mi man mm. loolu laa ko gisee mais tey vrai véritable volonté politique moo doon régler la solution mais malheureusement on va dire que les inondations ont englouti beaucoup de milliards moi je me pose la question où sont passés ces milliards parce que milliards bu ñu ko defoon foofu yaakaar naa du nekk jafe-jafe mhm. alors est-ce est ni tamit est-ce que gis nga ni ci xaalis bi ñu si jot a def président Macky Sall euh, ci 10 ans la donc un an moo ko dese te nee nañ presque 98 pour cent def nañ ko ci est-ce que jàpp nga ci un an bi ñu ñëw mën nañu rattraper li nga xamante ne moom la ñu ñàkkoon ci ci neuf neuf neuf yi passé waaw loolu man gëwuma ko ñoom sax suñ la ko waxee xam nañ ni <laughs> gëmuñu ko parce que loo jël nga ne danga am plan boo xam ne fukki at la mm-hmm. fukki at yi nga dugg si juróom-ñeenti at te saafara wut ça veut dire que benn at bi mënoo cee dabe loo deful ci juróom-ñeenti at loolu xel sax mënu ko nangu mm-hmm. ça veut dire que dañ dul def évaluation parce que tey soo jël mbir nga di ci dox yenn saa yi ñu ne la da nga am projet da ngay tàllal tali parfois nga ñëw gis ay obstacle nga gis montagne wala nga gis garab da xool noo koy résoudre wala noo koy détourner mais mënoo ñëw nga topp benn yoon bi nga jëloon chaque année chaque année nañu nga ci chaque année nañu déclenché plan Orsec ça sert absolument à rien mm-hmm. donc pour man le vrai ba mooy un plan Marshall pour la banlieue mm-hmm. c'est-à-dire nan la ñuy def ba restructurer banlieue bi c'est-à-dire mënuma ñëw nga ñëw raser mais am na zone yoo xamante ni euh, mënuñu ko sauver parce que ndox mi il a année mu ñëw kër yooyu nañu ko dindi defaraat ay yoon xàll kër yi nga xam ne mën nañ ko conserver ñu conserver ko parce que ñoom ñoo defoon ministère euh, euh, de restructuration des banlieues mais malheureusement c' était une coquille vide mm. parce que mosuñu ko def problème bu central donc bu fekkoon ni développé nañ ko mu nekk seen mbëbët ñu defoon ko fulla mm. kon heure bi jóge nañ fi mm. vous allez voir Abdoulaye Wade bi mu ñëwee indi na plan Jaxaay bassin de rétention mais les problèmes ont continué nga ñëw ñëw def tawféex comme comme projet plan Jaxaay pour tuxal ñenn ñi bi ñu bëggee defar TER dañu dindee ay population yu impacté dem tuxal leen bi ñu bëggee defar BRT jaar nañ Grand Médine am na kër yu ñu dindi donc bu fekkoon am nañ cette volonté politique maintenant question de priorité moo am ci réew maintenant bu fekkee dañuy gérer par taaba taaba comme sénégalais nu muy dundee gérer le quotidien lu ñëw bettuñu wala lu ñëw dal suñu kaw mm. te alors que gouverner c'est prévoir et ne me dites pas gouvernement n'a pas pu prévoir mm. il savait que météo annoncé na annoncé na surtout lan moo tax ñu bàyyi nag bu mu mën ba pare ministre bi sol costume am ne day xuus xuuslu fekk li muy def gëmmu ko sax mënuñu ñu mënuñu ñu tuur lëndëm ci ci et ça fait mal mm. parce que dafay mel ni ñaari Sénégal moo day mel ni euh, bu problème bi amee après ñu indi ceeb et comme business corona ne amee des inondations aussi noonu la amee. Mm. et donc alors que pour régler un problème il faut il faut des solutions structurelles et non des solutions conjoncturelles c'est-à-dire wut des solutions durables une bonne fois pour toutes pour que la question des inondations mu bañati nekk un souvenir ci sénégalais. Mm. alors gis nañ euh, jeune euh, Tivaouane Diacksao yi ñu baare péage bi est-ce que loolu mooy solution bi dem baare péage bi. oui mais xam nga ñoom jàpp nañ ni solution la pour ñu mun a exprimer seen ras le pour ñu mën a naqarlu pour ñu mën a wax. Mm. même si je suis pas parfois d'accord sur la forme. parce mm. que am na ko war a dem aéroport. tardé na volam am na ñoo xam ni. ci wàllu koom-koom wala ay malade. mais euh, loolu yëpp lu ko indi rek mooy euh, désarroi bu bu bu askan wu nekkee parce que soo waxee jagsaaw euh, Tivaouane jagsaaw nga wax jàmm gën. nga wax euh, ñetti mbaar nga wax Médina Gounass nga wax Djiddah Thiaroye Kaw c'est des populations yoo xam ne à un moment donné ils se sentent oubliés ils se sentent délaissés par par par l'État alors que tey autoroute à péage bi li muy symboliser mooy cette puissance étatique boo xam ne c'est même la France ah au moment où route nationale bi tëj Gérard Sénac il continue à su faire des sous sur nos de te péage bi taawul deful dara te donc genre injustice boobu mm-hmm. la ñu gis mm-hmm. donc pour ñoom aussi pour que nit ñi jot seen message mm-hmm. bon ci loolu lañ ci jublu beneen bi sa euh, montre réellement que ñun euh, lan la ñu jàppee parce que man waxuma ko président moo ne ku bëgg am tali bu normal bu éclairé da ngay jël autoroute à donc ça veut dire que yéen ñi nekk ci suuf mooy waa route nationale bi yéen waa Jeksa waa Diamaguène waa euh, Sicap Mbao wala rond-point Mbao considéré wuñ ñu keroog bi mu tawee diggante caaro yi ba ngay dem Rufisque munoo dem. parce que ndox moo ko occupé alors que péage bi occupé wul donc ni ñu amee volonté régler question boobu loolu la ñu war a régler et n'oubliez pas que li nekk ci route nationale bi di taa bu télé bi accueillir ndox moomu kër yi ko wër lan la accueillir. Hmm. donc loolu nag li muy wone mooy nit ñi dañu dem ba gis ni autorité bi il faut nga taxaw jàmmaarloo moom défier ko pour wax ko ne lii mooy sa jafe-jafe. Hmm. alors euh, loolu nag li muy jur nag mooy anarchie rek lay indi ëllëg donc ça veut que état bi na def li mu war a def. Hmm. parce que tey avant ñu ngi doon wax ay wax corona léegi le débat c'est autour des inondations donc ça veut dire que on a d'autres problèmes yoo xam ni moo gën a nekk jafe-jafe parce que même sur la pyramide des besoins de de Maslow l'individu a besoin de sécurité et premier gage de sécurité mooy nga am foofu fanaan am dëkkuwaay mhm. yaa ma koy wax sànq euh, buy taw yow nga nekk à l'aise am na koo xamante ni du nelaw parce que guddi gi yëpp dafay ŋàcc mhm. am na koo xamante ni bu tawee mu ngi xalaat ni dalam dina màbb ci kaw dafa mel ni ñii ñuy jiite amaana xamuñu jafe-jafe yu ñu nekkee pour ñoom nañu indi benn solution euh, à la vite fait alors que réglé wuñu le problème donc pour man les inondations ce ne sont pas seulement un problème c'est les conséquences de nos politiques de 1960 à nos jours muy absence de d'une vision globale d'aménagement du territoire de l'assainissement et, et de l'urbanisme mm. donc nag comme nag euh, ñu mbiru dëkkuwaay am kër yombul location bi cher na ce qui fait que nit ñi parfois ils n'ont même pas le choix mhm. dañuy dem ci yenn zone yoo xam ne xur la dañuy dëkk pour bëgg a dëkk dañuy dëkk parce que amuñu solution mhm. donc euh, loolu daal mhm. daa amoon ci ci ci jàngat bi par rapport à ça alors fenn rek la ñuy daanee dañu gis si semaine bii nii ah, ba léegi yéen a ngi ci seen émission gisaak euh, ma si dalal Cheikh Omar Talla chroniqueur alors dañu gis benn fee bu marqué si semaine bi fait bu marquant la mooy Siteu dañ ko gis moom ñëpp xam nañ xeexam dafay wane toujours appartenance am fi mu dëkk ak yooyu ni mu dëggalee boppam wax état bi wax leen dëgg est-ce que gisee ni yeneen porteur de voix yi peut-être yeneen sportif yi wala yeneen politique yi dañu war a dem seen wetu askan toog fa def ay déclaration parce que message bi mën a jàll bi état bi mën si jot. vous savez Siteu il fait ma fierté ah. il fait mm. ma fierté. Mm. d'abord banlieue laa dëkk mais mm. Siteu il draine du monde. et boo gisee phénomène Siteu am parce que. doomu jàmm gën la doomu banlieue la hmm. eh, bu bu bàkkoo mu neex bu bëree mu neex donc euh, déjà man dama ko dama am fierté ba benn jour ma toog jékki-jékki déglu benn vidéo ma déglu Siteu hmm. ma ne mais kii nit la parce que message bi mu doon wax mooy par rapport ak jeunes yi doon dem ci gaal yi et cetera muy expliquer donc ça veut dire que c'est un leader d'opinion hmm. et un leader c'est celui qui est capable de tirer les autres comme Siteu il a la capacité de drainer du monde tey seen force donc état moo waroon am intelligence a utiliser site pour faire passer son message pour sax mobiliser la communauté des jeunes pour euh, pour wax ak ñoom donc loolu mu def su ko defee lu ko war la parce que nit ki fi nga dëkk ngay ndamoo moom ngay tiitaroo donc ça veut dire que en dehors de site euh, ñeneen ñëpp war nañu roy ci moom muy koo xam ne leader d'opinion nga porteur de voix nga mais beneen bi patriotisme bu Sénégal ay war a am mm. je parle de l'état mais tey sunu patron yi ce qui lan la ñuy jëriñ mm. route nationale bi ñaata entreprise ñoo fa nekk. waaw bëri mu limal la SIPS fu mu nekk. si route nationale bi. ah route nationale Nestlé Sénégal fu mu nekk. mi ngi nekk ci Fass Mbao ñoo nekk heure bi waroon ran la investir ñoom ñu dem indi ay moto pompe. waaw vraiment. bind ci seen seen logo loolu de sponsoring. loolu mooy responsabilité sociétale des entreprises yu nekk foofu il ne sert pas. je par la publicité pour eux mais ils devraient s'investir dans ce sens sunu patron yi nekk fii yore teraanga kenn kuñ ci woo Sorano wala Grand Théâtre nga baatare lan moo tax mun mënuñu agir ci li y a des, des actions à question de solidarité question de patriotisme donc moment bi c'est pas seulement Siteu mais il y d'autres personnes qui sont la peut-être il y a de bonnes volontés qui vont le faire il une solidarité agissante entre Sénégalais mm. mais c'est entre nous baadoole yi donc loolu mooy le vrai débat. Mm. mooy tey entreprise yi nekk foofu ci zone impactée yi qu'est-ce qu'ils pour la banlieue. Mm. ñaata entreprise ñoo nekk foofu zone franche industrielle loolu yëpp ñaata secteur ñoo fa nekk. Ah, donc aujourd'hui l'état daf leen waroon contraindre sax. Mm, pour que ñoom ñu agir weñ seen loxo weñ seen woon xaar sa état de leen invité parce que pour man la meilleure publicité mooy agir dans le social et ils ont l'unique occasion de le faire d'ailleurs mm-hmm. a baax. non man moom. en fait wala fi ma bëggoon a daaneel juste mooy askan bi. seen responsabilité si par rapport ak mbir mi am si échéance sii di ñëw muy local bi muy présidentiel bi. jàmbaar. Hmm. Euh, yàlla nee la du soppee askan tant que askan bi jógul ci soppeeku boppam. donc le changement que nous voulons nous devons être le propre changement que nous voulons. Hmm. donc c'est une occasion que mu invité sénégalais yëpp ñu dem bindu. surtout ndaw ñi. Ah, surtout parce que léegi loi bi ni ko tëggee. Mm. def nañ pexe ba primo votant du yomb ci moom. <laughs> foog nga am carte euh, voilà parce que mois de mars ndaw yi ñëw génn. donc na leen ko jaral ngeen yeewu fajar ngeen dem police dem photo wu que seen droit la ngeen am seen carte d'identité ngeen dem ngeen bindu. voté leen ku leen neex. Mm-hmm. mais jàpp leen ni sa vote dafay impacté juróomi at. Mm. élection locale dafa am solo pour man moo ëpp solo sax bii ñëw présidentielle parce que. c'est la gestion de l'immédiat c'est la gestion de la proximité c'est la gestion du quotidien et il faut que ndaw ñu impliqué wu davantage il faut pas que ñuy bàyyi ñeneen di dogal ci suñu place battez-vous impliquez-vous politisez-vous bu leen ko bàyyi ak mag ñi bokk leen ci kuréel yi ñuy dogalee et ça pour nga am ko premier baat mooy sa carte électeur e pour man c'est l'unique occasion quand même am na maire yoo xam ne toog nañ fii Euh, jàpp nañ ni liggéeyuñu ben c' est l' de les sanctionner nañu abal leen ñu indi ñeneen. Mm-hmm. am na yoo xam liggéey nañ c' est de leur dire que vous avez vous avez travaillé malheureusement on aura toujours les mêmes problèmes bu élection jotee ñu fàtte suñuy jafe-jafe fàtte suñuy problème bu ñu joxee ceeb mbaa ñu jox ñu junni mbaa jox ñu t-shirt on va reconduire euh, les mêmes pratiques et man peut-être c' est une d' inviter les jeunes parce que moi je donne mon exemple moi je suis élu local à local dans département de doublement parce que 2014 dama ñëw ma ne man lu ñuy def ci dëkk bi dama cee war a bokk am naa may moroom yu may nekkal gëm nañ ma ma dem waxtaan ak ñoom sensibiliser leen bokk ci kuréel yi nga xam ni ñoom ñooy dogal ba fu ma toog problème jeune dinaa ko wax problème mu Pikine dinaa ko mën a wax donc tànk nag boo bokkee ci réew dafa am lu nga bokk ak li nga moom ak liñ la boole bul xaar yow ñu lay woo parce que mag ñi duñ la woo il faut que ñu fokkati mbir mi et ça j'invite toujours les jeunes à s'impliquer davantage mais aussi à s'armer de de de de connaissance Cheikh Anta da doon wax armez-vous de savoir jusqu'aux dents il faut pas que ñuy loo ni jàng bi doo réussir. Mm. jàng pour réussir jàng pour xam la. boo xamee di nga mën. Mm. loolu laa bëgg daal lu may invité suma moroomu jeunes yi di leen wax bu ñu découragé parce que le Sénégal de demain ñun ñoo koy defar et pour ñu defar ko ëllëg il faut ñun ñu defaru defaru ci suñu jikko defaru ci suñu comportement. Mm. merci beaucoup merci beaucoup jaajëf. alors ça a plaisir de vous servir toujours Ousin ci émission gisee ak say ñu doon dalal Cheikh Omar Talla euh, ki nga xamante ni moom moo nekk si caméra bi di sa sama doomu ndey latéral droit bu mag bi kooku mooy Toumani merci beaucoup jaajëf